Pape Djibril Fall mu su amee staff bu baax. am ay kàngam. am ay boromi bopp. chef de position kii falu apparemment ki moom mun na ko nekk. lay def pour moom mu bañ a jàpp moom mu bañ a ndax actuellement mu ngi ci bonne voie. Pape Djibril Fall li ma koy digal. li ma koy digal. mooy mooy ne pas trop parler. te bay wax moment bi muy wax bu mu bari.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 à part uh-huh. euh, mbetteel gi am mbaa mbetteel gi am am na mbetteel bi am mbetteel bi am à part mbetteel bi Pape Djibril fa laa fi gis à part mbetteel gi parce que il faut surprise am parce que réew mi dafa stagné wu te yàlla du bàyyi Sénégal mu dem dans la dans la kaw